conduite assurance ak carte d'identité ak extrait de naissance ak carte d'identité nationale tout de suite rapidement allez. di leen def di rouler ci tali bi nekk fi di dawale nu mu leen neexee di jéem jaay affaire de gangster ah. yor oto de luxe tax na ngay daw lu neex di bam pararar. dimbali eh, sa préamé baaxul un oh, première infraction deuxième infraction yow yaay mën nooyoo. waaw man xamee woon Modou Lo Modou Lo daan tol mu nga tol Modou Lo bu la fam jàq da ci affaire bi ñëpp xam ko dara may Modou Lo yow yaa Modou Lo mii ngeen di dem ci jël photo jàmbur di dem ci seen ay permis wala dara di jéem a affaire yooyu mooy lan nga Modou Lo la ëpp téeméeri junni yoon Modou Lo daan tol ni nga tol desaan la boot loo jëloon def ma ko rapidement circulé waaye circulé dem parti bi yaa war yaa Modou Lo yem xamee wu Modou Lo. gis nga bien sûr kër yaa Modou Lo mooy mag nag Modou Lo daa toll nii ngaa toll. bàkku Modou Lo bi roj gun taj gi xam nga bàkk bi yow. waaw ah, moom moo nga ma koy laaj. ah, ah kon yaa moom bàkk bi yow. waaw daaneel bi droite lay jëm wala gauche roj gun taj gun roj gun taj gun roj gun daj bu daj góos la ko yóbbu wala droit fan la ko ci yóbbu. foo ko yóbbu baax na. foo ko yóbbu baax na ah pourtant wax na dëgg de fii pourtant loola de. aywa dégg nga de mais wuy ma attention nga def ni dama lay neexal lool di la jéem a baab ak di la jéem a kii dara taalew balaa. yàgg naa laa war ci Sénégal partout dans le Sénégal war naa la ndax xam naa infraction yu bari yoo xam ne yaa ngi koy def te ne war naa bis boo la gisee naa la war naa la ko wax naa la kole motif infraction yu garaaw laa la wax nga am man yàgg naa laa war dem naa ba tey ba ñaan seen dëkk am naa ba 15 jours teguma la bët foo newoon infraction ni war a eh, xoolal barki démb boo ñaan yàggul dara Sénégal kenn lekkul jën kenn mosul jëm ndax gaali kenn demul géej nappuuru ndax sa laabu jooju mët loo mooy bëre du dem géej mët loo mooy bëre du nappi batooy nappuuru kenn nappiwul ndax yow kooku infraction la jour boobu yaa xam Sénégal yebooy yàggaatul dara laa lay wax ni ci fan yi ba septembre koo bekk naa la ñëw కోపకనాలలో డూస్ ఫేవరేట్కో కోపకనాలలో వెంకట్ మార్చుకో కోపకనాలలో సెంట్ అమృల్ అక్కడ వెంట్రో అమృల్కో గంట కోపం రాజమే ఫ్రాక్షో గంటే పారేట్ తప్పిజం జబి పాల్ గంటే హల్ పాల్ గంటే పే టూబే పాల్ గుయం బెల్లకో నా ఞలో ఞంగ్ దేవ్ కసిం దా గంట కులో దక్ బోబ మన్నారి దక్ బర్ నగై రాబ్ నగై జే ద ఖరల్లో ఖరల్లో ఖరల్లో ఖరల్లో ఖరల్లో ఓ గంట కోపం yow même boo amul combat sax dangay jaar ci tali bi bougel circulation yi oto yi duñ mën a dem oto yi duñ mën a dikk te loolu infraction la agent yi bàyyi la ci mais man duma la ci bàyyi. ah dama jégal rek. mais wuy ma xam naa ne yow loo xarañ loo mais wuy ma a de xoolal doon naa la bëgg a gaa ci giri bi mais duma ko def xamal tax dama bëgg nga jàppale sa tonton. man xam naa ne xoolal bagage yi bu fekkente ne ndoom ba goo may abal la wala saafara soo may jompal wala bu dee sax nga toqal ma ci capuchon bi sax baax na ma buux ci quoi xoolal 65 ans def naa ko ci brigade bi nekk brigadier 65 ans laa la wax de juróom benn fukki at ba léegi avancé wu ma samay grade yokkul sama salaire yokkul sama yokkul non jàppaleel sa tontowaay mu am bay rek. yaa ma ay bagages sax yow li nga tax leen a takk pour la forme nii rek pour nappe mais xoolal yii varié nan jeex nan dàq seen dala dem na. waaw lu varié nga dindi lu ah, ma koy dindi ah, dooy baroon rek ci biir xam nga bu ko defee ci nappaale. mais yow da nga bari wax. mooy affaire bëggul wax. non wax dëgg du ma wax de. non yow yow ni ma la gisee nii yow. dafa bëri wax du ma wax xoolal xoolal kenn du koy yëg man xoolal affaire bi lan laa la xamal boo ma ko joxoon gaa moom sama papa moom laa xam ne mënu koo a yëg ak sama yaay léegi ak sama soxna ak sama soxna yaayam quoi léegi après yaay am naa samay xarit yu nekk teetam ay léegi ay ñoom papi gaa yooyu ñoom gaa leen ko expliqué am naa samay ay copine yu may ànd ak ay boo bëgg ay ndeexati Québec ay ñoom xarit maa leen ko Mara ak gaa yooyu maa leen ko expliqué

sol ko quoi waaw jàpp ci waay loo nam ko la boo añee ba macaat bu macaat mi desee nga teen ñeex mi quoi ma mos ci quoi ma taas ci barke bi dégg ah. jaajëf baabul problème buy ma boo ma jàppaloo rek yàlla jàppale te xoolal bu demee ba nekk commissaire xool naa nekk sa manager nekk garde corps en même temps dégg international garde corps international xoolal man damay xeex bay naaw damay bëre bay naaw waaw nee na xoolal attention jaajëf a tee waaw dégg jaajëf Baye jaajëf Lo jaajëf Baye. seet teet teet teet teet teet man am na lu ma dee naa tey booy bi dama ne ko woon dama koy ñaan ci sekk bi mu mosal ci ma mën di sekki te kon booy bi dem na. waaye dee loo xarañ.